mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen remercier comme à chaque fois ci top bi ngeen ñuy top. comme à chaque fois dañuy ñëw ak yéen ci actualité lii di benn information de dernière minute di génn àdduna ki nga xam ne moom mooy góoraloo góoraloo rek moom mooy papa ki nga xam ne moom mooy Modou Lo Modou Lo di moom mooy Sénégal jamono ji sax moom moo fi nekk roi des arènes moom moo nekk ci kanam mu mbër yëpp information bi nag ñu nga ko gis ci ay réseaux sociaux yi ay nit di dugal li nga xam ne moom mooy photo papaay Modou Lo boobu di wuyoo ci turu góoraloo ñu koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana te jégal bu leen ko fàtte moo leen di mën a permettre ngeen mën a am xibaar yi foo leen mënti tollu ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ci bi limametti point com ak yeneen information